بسم الله الرحمن الرحيم ووجد من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل مطهر تركب السفينة وقد ألجم نصر وآله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بلا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خند فعلها تحتها النطق wa anta lamma wulidta ashraqat al ardu wa daat bi nuurika al ufuqu fa naxnu fi dalika diyaai wa fi nuuri wa subli rashaadi naxtariqu allahuma inna nasaluka bi jaahi almamduuxi indaka walmaadixi an tuazima xadana min dalika alnuuri waldiyaa wa an tahdiyana ila sabili rashaad amin ya mustafa min qabli nashati aadamin walkawnu lam tuftax lahu aglaaqu ayaruumu maxluqun sanaaka baadama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 نظاما بحق أو نكارا لملحد أغر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وشد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة لدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلا ليلة الظلم وفي طفي وسنى بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم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 ka shamsi tadharu lil aynayni min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil hulumi fa mablagu l-ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim man za allazi ma saa qat wa man lahu l-husna faqat muhammadul haadi allazi alayhi jibrilu habat muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bayna al-hajar allahuma salli ala man fatihiyatuhu bi badii ijaadi baraatu istiqlaal wa man xaatimiyatuhu baraatu muxtami walkamaal allahuma salli wa sallim ala baxri anwaarika wa maadani asraarika wa lisaani xujjatika wa aruusi mamlakatika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 bi saadatun min izzihim aqdamuhum fawqa aljibaa innama kun minhum fali bi xubbihim izzun wajaa fa bi jaayihim wa bi izzihim tayib lana ayshan xayaa waxtim lana bil xayriya man la lana rabbun siwaak tahniatu rabii limarxati shafiici bilmantaqi albadii abgi biha muammale ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي ربنا صل على خير الأنام ممن على على السماوات العلا بإذن ربي العلي تهنئة ربيعي بمدحتي الشفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول ربيعي بمدح الشفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها قد خص به الربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاطب معضل تحية ربيعي بمدحة الشفيعي بالمنطق البديع أبغي بها محمد أهلا بشهر الفرح شهر ذهاب الترحي وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل يا ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطقي البديعي أبغي بها محمد شهر ربي بمدحتي الشفيع بمنطق البديع أبغب يا مؤملي مصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل تنيت ربي بمدحتي الشفيع بمنطق البديع أغضب يا محمد شر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل تهنئة ربي بمدحتي الشفيع بمنطق البديع أبو بها محمد الذي أسره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل أن يتاربي بمدحتي الشفيع بمنطق البديع أبو بها محمد شهر الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي يا ربي بمدحتي شبي بمنطق البديع أبغى بيا محمد الاثنى عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك سحر ونور أفقه المجلي يا ربي بمدحتي شغي بمنطق البديع أبغي بها محمد لكل ما ظهر من خالق يعي الذكر به كرفع البصر إلى مقامه العلي ربي بمدحتي شبي بمنطق البديع أبغي بها محمد ما رأته من عجاب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل تم يا ربي لمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي للزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بالصنم المجدل أن ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي لا إله لنظمها آمين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 asalaamaaleykum mbokk yi sëriñ bi ne alhamdulilah asalaamaaleykum na ñu ngi ndokkeel suñu bopp di ndokkeel mbooloom jullit yépp ci bési teranga bii xam ne bii nga xam ne ci la borom teranga juddu nga xam ne ku xamati teraanga rek foofa nga baxee ko mooy cosaani teraanga mooy cosaani teraanga ndax teraanga li ci gën a màgg mooy nit ku teddee xam-xam te xam-xam njëkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne amoon na itam dafa tëju woon ci ay ruq rek. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw tasaare xam-xam gone mag jigéen góor ñëpp jot ko. ñëpp jot xam-xam. nekk ci ay kàngam yoo xam ne. nekk ci nag di ay kàngam yoo xam ne. dara réerut leen ci xam-xam. xam-xami kaw ak xam-xami suuf ak xam-xami géej yi xam-xami ndundat yi lépp boo demee xam-xam la yoo xam ne ci barkeb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ballee te saaroo nag ci mboolem mbindeef yi ñi ko gëm ak ñi ko gëmut yépp yonent rek mooy jum bi nga xam ne ci la ñépp di gindeekoo bokk na ci teraanga ci boppam nit yëg ci boppam nit ci boppam ne am na liberté ne moom nit ki am na liberté am na kattani tànn am na kattani bàyyi am na kàttani bëgg am na kàttani bañ am na kàttani nangu am na kàttani weddi yooyu yëpp mu ngi booloo ci doomu aadama bi yàlla moo ko ko may waaye ku ñu ubbi buntu yooyu ba nga xam maqaama yooyu yëpp barkeb yónnent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko may bu ñu gindee koo ba xam diggante nit ki ak nit kii di moromam li war ci seen diggante ci teraanga li war ci seen diggante ci teraanga mënta nekk mënta nekk jógee ci xam-xami kese jógee ci xam-xami kese jógee ci ci xam-xami nit kese ci xam-xam yàlla mi bind nit rek. xam li xam li mu xam li nit ki soxla xam li nit ki bëgg. foofa rek la nit ki di xamee moromu nitam. jox ko gëddam jox ko gëddam nag. jox ko cëram. fonk ko. comme ni ko yonent bi waxee. nga bëgg sa morom sa bopp. nga bëgg sa morom comme yow ni nga bëggee sa bopp. loolu yépp tey gii ñuy feetu. teraangay ki juddu guddik tey gii ñuy feetu. ci moom lañ ko xamee sallallahu alayhi wa sallam. ci teraangaam lay ci teraangaam lay amee. yàlla ubbil ñu. yàlla ubbil ñu. buntu xam-xam yu bëree bari nit ñi jàng leen. ne nit ñi jàng leen. yàlla moo leen di xamal lu ngeen xamutoon. ndax yàlla moo leen di xamal lu ngeen xamutoon. insaana maa lam yaalam yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamu ko woon. yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamut ko woon. ba tey doomu aadama ngi xam. jii doomu aadama ngi xam-xam ngeen. ba léegi doomu aadama ngi am xam-xam. ba léegi doomu aadama ngi am xam léegi doomu aadama ngi ci ay gëstoom loo xam léegi doomu aadama ngi génne ci ay gëstoom loo xam ne. ci kaw xam-xam la sukkandiku. ci kaw xam-xam la sukkandiku. kéemtaan yoo xam ne waxtu génnee rek. nekk nag bi ay kéemtaan yoo xam ne waxtu wu génnee rek. nga xam ne kii yàllaa xam ne dëgg-dëgg jaam bii yàllaa ko teral. yàllaa ko terale xamal ko loo xam ne keneen xamut. xamal ko loo xam ne keneen xamut ko. xam-xam nag kenn demut ba jeexal ko. xam kenn demut ba jeexal ko. nekk ku nekk rekk yow am na fu sa niveau yem moo tax yàlla mu ne képp koo xam ne xam na rek am na ku gën a xam képp koo xam ne xam na rek na ko leer ne am na ku ko gën a xam te xam-xam du fii la em du fii la em te du fii it la em du lii rek ngay gëstu bàyyi lii xam-xam yépp ngay gëstu li ko dalee ci nit ak taxawaayam ak li composé nit yépp lu mu sew sew boo demee xam-xam a fay dugg di ko gëstu di ci génne ay xam-xam yoo xam ne ñeneen danañ ko jëriñoo nit kooku nag am gannaaw yonent yàlla Muhammad la am sallallahu alayhi wa sallam. teraangay yonent ci doomu aadama. kon teraangay yonent ci doomu aadama. amut dayoo. amut dayoo. duñu wax ne nag. duñu wax ne nag. yonente ko moom. yonente ko moom. waaye dañ ko ubbil yàllaa ko ubbil ko waxal. waaye yàllaa ko ubbil rek na ko waxal moom yonent bi. ba pare xamal ko li mu ba pare nag xamal ko li mu war a wax. mu wax lépp ba àgg ci doomu aadama li aju ci doomu aadama yépp mu dajale ko wàccee ko muy benn téere ci moom téere boo xam ne junney at ak nàmma ngi nàngama ngi nii téere baa ngi fi junney at ak juróomi téeméeri at téere baa ngi fi te nekkewu fi nag lu moy nekkewu fi jàmm nekkewu fi jàmm ay noon guddeeg bëccëg guddeeg ñu ngi ci téere bi di wax ñu ngi ci téere bi di wax ñii di weddi téere bi ñii di ay sukkandiku ay théorie science ñii di sukkandiku ay wax leen ma fu ngeen jëlee alquran ji waaye nag la arab ba waxoon rek gi daf koy daane. yéen ñii yéen a ngi mel ni béy wuy mbëkk montagne ne daf koy daane. béjjén ya mooy dem waaye montagne ba mag. béjjén yaay dem mbaa loos wa damm waaye montagne ba mu nga fa rek. ndax alxuraan. yàlla mi ñu waxi yàlla mi ñu bind la. li mu wax yépp mu ngi ci doomu aadama. li mu wax yépp mu ngi ci jikkoom moom yàlla lim ci wax yépp ak xéewal yi nga xam ne lim wax yépp mooy xéewal yi nga xam ne yàlla bind na ko pour doomu aadama mu ñeexal ko ci yonent ci lañ xamee laay ji wax ne. wala qad wa xamalnaahu fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdilan man yàlla maa bind doomu aadama maa ko teral man yàlla maa bind doomu aadama bi te maa ko teral man yàlla maa ko maa ko waral man yàlla maa waral doomu aadama bi man yàlla man yàlla lu dul yàlla rek lu lu yàlla bind rek lu dul lu yàlla bind rek lépp lu yàlla bind lépp lu yàlla bind doomu aadama tax mu bind ko xam ngeen ndax mu nekk njëriñam asamaan sii ngeen di gis suuf sii ñu taawu géej geej te ñun ñépp xam nañ loola lim ñuy jëriñ lan la moo tax yàlla mu ne man maa leen ko bindal tàggatal leen ko lool. muy buntu gëstu xam-xam yoo xam ne yaatu na lool. baykat yi am nañ ci seen wàll. baykat yi am nañ ci seen wàll. ñiy xalaat ci kaw asamaan ak am seen wàll. ñiy xalaat ci kaw asamaan ak biddiw yi am nañ ci seen wàll. ñiy xalaat ci géej yeeg yéen yéeg nekk ni nekk géej. ñiy xalaat ci géej géej jën yeeg nekk ni géej am nañ nañ ci seen wàll. am nañ ci seen wàll ñu ngi seet. waaye dañuy seet a seet rek ba dayoo. waaye dañuy seet a seet rek ba doyal. àgg naa ci xam ne nii waaye dayoo àgg naa ci xam-xam ne nii la. loolu sëriñ bi na jafe na lool. gisaguñ ko te yaakaarut ne danañ ko gis. xanaa bés buñ demee àllaaxira yàlla yéex. ba jàkkaarloog yëf yi. ba jàkkaarloog yëf yi. su boobaa danañ xam-xam-xam bu leer. su boobaa danañ xam-xam-xam bu wér. su boobaa danañ am xam-xam bu dëggu. yal nañu ci yàlla àggaleeg jàmm yaara bi. ñu fekk fa jàmm. sëriñ bi nañu ngi baamu. gàmmu ngir bidaa. gàmmu du ku nekk am nga lu ci sa xol. ku nekk am nga lu la neex ci sa xol. nit ku nekk am na lu mu bëgg. nit ku nekk am na lu koy kontaanloo. mbooloo mu nekk am na lu muy feetu. feetu. lu ñuy feetu. ñun tànn nañ. ñun day tànn nañ. bu ñu bëggee feetu. yonent bi la ñuy feetoo. sallallahu alayhi wa sallam. ndax lan. ndax li mu wax ne yëpp defal nañu ko. mu wax ne yëpp defal nañu ko. yàlla defal nañu ko ndax moom. yàlla defal ñu ko ndax moom. loolu xam ngeen ne jar na feetu. te amee. te liñ ci amee. mbooloo yu daje. daje. te mbëggeel rek moo jaar seen diggante. te mbëggeel moo jaar ci seen diggante. jàmm rek a jaar seen a jaar ci seen diggante. oote jëm ci jàmm rek moo jaar oote jëm ci jàmm moo jaar ci seen diggante. ay mbokk yu gëj a gisee mbokk yu gëj a gisee daje di saafuwante. xarit yu gëj a gisante daje. ay xarit yu gëj a gisee daje. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. loolu rek. waaye dégloo leen. loolu rekk loolu rek. jar na. ñuy daje di gàmmu. ndax danañ ci xamee loo xam ne. bu taxutoon ak gàmmu. duñ ko gi naa ay nit sëriñ bi ne gàmmu gi gis na ay nit ñoo xam ne. dëgg-dëgg sëriñ bi nag xamutoon ne nit ñu kawee noonu. nit ñu amee xam-xam noonu. nit ñu dogoo noonu. ñëpp ñu pare pour liggéey pour ñëw Sénégal. yëkkatee Sénégal ci coono. pour nu ñu yëkkatee Sénégal ci coono. nu ñu génnee Sénégal ci ay jafe-jafe. nu ñu ci ay jafe-jafe. ñii ngi defar ay banque ñii ngi defar ay banque ñii yaa ngi defar ay société ñii yaa ngi defar leneen ak leneen. ñii yaa defar leneen ak leneen. loolu yëpp pour. développer seen réew. développer seen ci dayo yi nga xam ne. ba mu xàgg ci dayo yi nga xam ne foofa la war a xàgg ndax nit ñu koy defar day xam nañ fi nit a koy defar am nañ fi kon xam-xam yaa ngi fi borom alal yaa ngi fi nit ñu kawe ñaa ngi fi ñu bëgg lu ñu bëgg ñu baax ñi toog leen toog leen bi nag mu ngi nii benn tegtal a ngi nii feeñ ne na gu mag a ngi nii baxee koo Nigéria li ko mën a boole mu toog ak ñun guddi gàmmu gi rek moo ñu mën a boole ñu toog ak moom tey boo gisee nit ñu kawe ñi nga xam ne boo leen bëggee gis da xam ne da nga sonn lool bala nga leen a gis kenn ci ñoom moom mu ngi nii tey toog fii ci suñ biir ñu xam ñu xam li yonent jëriñ mooy mbokkale ñu ñun ñëpp ñu nekk di benn ñu nekk di ay mbokk rek. ñu nekk di ay mbokk. yu bëree bëri. di ay mbokk yu bëree bari mbooloo mi daje fii. mbooloo mi daje fii. nationalité sëriñ bi ne nationalité bu nekk mu ngi fi jógee ko fu nekk nag. ñëw Sénégal. ndax am nañ. dégg-dégg boo xam ne bu ñëwee Sénégal ut fi yonent yàlla dana leen ko may moom kon am nañ ci gàmmu ngëneel yooyu yëpp xam nañ ci gàmmu am nañ ci gàmmu am nañ ci gàmmu mbaax yooyu yëpp loolu yëpp bon jar na ñu dajee ci gàmmu ngir xamante Sénégal gii yàlla teral na ko ak ay doom baleen yàlla teralee ci jaami yàlla yi rek. di nga yëg ne teraanga jooju dañ koy toxal ci jaami yàlla yi rek. parce que ñoo tax yàlla may leen ko. parce que ñoo tax yàlla may leen ko. Cheikh. Ibrahim Ibrahima kenn la ci ñoom. gis ngeen lim def. gis ngeen ko gis ngeen góor gu màgg googu gis ngeen ko it lim def. gis ngeen gis ngeen àddina bi fi daje. gis ngeen àddina bi fi daje yépp tey. ba mel ni. ba mel ni. senegaal réewu pèlerinage la. réewu fu nit ñi dem di uti ñaan. fu nit yàlla boole na ci senegaal nit ñi di fi ñëw di ut si ay ñaan. loolu mooy senegaal yàlla dénk na ko. ay doomam. ngir ñu sàmm ko. yal na leen yàlla may xereñte guñ ko mën a sàmmee guñ ko mën a sàmmee yal na yàlla may leen xam-xam bu ubbeeku bu yaatu yaa rabbi amin yal na yàlla may leen fit amin ba dara du leen tiital Sénégal gii réew mu kawe yàlla bëgg na ko guddi gii doy na ci seede ak yeneen guddi yi xew ak yeneen guddi yi xew yëpp nuñ koy doyee ñëpp ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sangi mbindeef yi ku bëgg ci yàlla ci moom ngay dem suñ mag ñi jaar nañ fi jébbal nañ seen lépp yonent liggéeyal ko. ci xeetu Sénégal. ci xeeti Sénégal. ba nga xam ne tax na. ba nga xam ne tax na. li français yi bëggoon def sénégalais yi yi bëggoon a def sénégalais yi mënuñu ko. mënuñu ko. ndax doole góor ñu ndaw ñooñu ñuy fekkeet. bëriwul sax. juróomi góor rek lañ. juróomi góor rek lañ. waaye gis ngeen seen liggéey fi mu xàggale Sénégal loolu yëpp ñu ngi koy am ci gàmmu gi ba tax moo tax moo tax sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaan yéen ñii di diriger réew mi pouvoir ak opposition pouvoir ak opposition yi yéen ñëpp yéen a xem ndax yéen la population bi di déglu population bu ndaw la buy màgg population bu ndaw la buy màgg sa ndaw muy màgg nag foog nga ànd ak moom ci xereñte boo amee sa ndaw muy màgg nag al foog nga ànd ak moom ci xereñte teg ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub pour ngir mën koo teg ci yoon woo xam ne moo yoon wu jub pour moom. te bañ tarxiis di jaar foo xam ne. te bañ a di jaar foo xam ne. mën naa jur ay fitna. mën naa jur ay fitna ëllëg. yal nañu ci yàlla musal. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal ci balaa. yal na yàlla musal Sénégal ci balaa yaa rabbi. yal na yàlla yal na yàlla xamal senegaal doomi Sénégal ñi jiite politique ci Sénégal. ñi jiite politique ci Sénégal. ñi jiite diine ci Sénégal. ñi jiite diine ci Sénégal. ñi jiite yeneen yëpp. ñi jiite yeneen yëpp. yal na yàlla defal leen tawfiix. ñu liggéey liggéey boo xam ne. ñu liggéey liggéey boo xam ne. niroo na ak Sénégal. niroo na ak Sénégal. niroo na ak taarixu bu yàggul dañ maa oo màkk. sëriñ bi ne bu yàggut dañ koo xoo màkka mu dem uy ji leen. ba ne ba mu demee. mu ngi ànd ak samay doom. mu ngi ànd ay doomam. ñu woo ñu ci war a daje. ñu woo ñu bés leen ci bés bi nga xam ne ca lañ war a daje. kàngaam bo kàngaam yi borom xam-xam yu bëree ngi toog. bañ ñëwee. am kenn ci sama yi. am kenn ci doomi sëriñ bi. jóg dafay daf may ne dafay présenté sëriñ bi ñi leen invité woon. ñu ne ko ñun gën a xam toogal. ñu ne ko ñun kii nga ñuy présenté ñoo la ko gën a xam toogal. ba mu ko xooyee. li ko wooyee li tax ñu woo tax ñu woo ko. mooy place nga xam ne bàyyam moo ci. ligue mondiale islam. mooy place bii nga xam ne baayam moo ko amee woon ci ligue mondiale islamique. te ba mu demee ba tey. te ba mu demee ba tey. place baa ngi fi vide. fi vide. kenn nekkut ci. kenn nekkut ñu bëri ut nañ ko sax. ñu bëri ut nañ ko sax. waaye place bi daf fee nekk rek. waaye place bi daf fee te yëg nañ. te yëg nañ. na ñàkk nekk place ñàkk nekk nit ci place bii. na ñàkk nekk nit ci place bii. indil nañu vide bu mag a mag nañu vide bu mag a mag a mag. fa nga xam ne fi liggéey Ligue war a àgg ci Afrique sax àggu fa. fi liggéey mondiale war a àgg ci Afrique sax àggut fa. moo tax dañ laa woo. moo tax dañ laa woo. ne sa chaise bàyyi ngi nii toogal. ne sëriñ bi sa chaise bàyyi ngi nii toogal wuutu ko ci. ñu ngi lay ñaan. boo demee. boo demee. li nga mun ci samp. li nga mun ci samp. li nga ci samp. li ci taxawal. li nga ci taxawal. ñu ngi ci sa gannaaw. ci sa gannaaw. bon nag loolu. bon la Sénégal kawe. la Sénégal kawe. kon Sénégal googu buñ sëriñ bi mu ne buñ ko yàq. Sénégal googu buñ googu. sëriñ bi mu ne buñ ko lakk. ci ay xuloo yoo xam ne jarut ko. ay xuloo yoo xam ne jarut ko. ndax boo ko lakkee. boo lakkee sa réew mii. fooy dëkkee ana fooy dëkkati yow. ana yow foo jëm. nañ téye suñu réew nañ ko garde nañu garde suñu réew mi ak xereñte nañu garde suñu réew mi ak xam-xam nañu ko garde nañu ko garde ak bëggante ak bëggante nañu ko garde nañu garde suñu réew mii bañ a jamante ci ay wax a jamante ci ay wax di sànnihante ay wax yoo xam ne di sànnihante ay wax yoo xam ne dafay delloo nit gannaaw rek waaye du ko avancé delloo nit gannaaw rek waaye du ko avancé loo ay mer rek indi ndax ay mer rek lay indi fayu rek moo ciy topp. mer bu ñëwee fayu rek moo ciy topp. buñ fi nekkee nag di fayu xante ci suñu biir ñun kese. danañ xam ne defaluñ senegal dara. muy pouvoir muy opposition yi. sëriñ bi mu ne. seetaat leen ak xereñ ni ngeen di liggéeyee. ndax moment bii ñu ndax ci moment bii ñu toll. moment bu doxut moment bu yomb de. ndax euh, ma ko waxee ministre bi démb. sëriñ bi ne ni mu ko waxee ministre bi démb. évolution sociale la. évolution la. dafay ànd ak lu nekk. waaye nag. lu nekk nag. lu nekk mënta të doomu aadama. mënta kon sëriñ bi ne nañ bàyyi xel ñi ñu élif. ñi élif nañ bàyyi xel ci ñi élif. ñi nañ bàyyi ci topp yi nga xam ne ñoom ñoo leen élif. ñi élif itam nañ bàyyi xel. ñi itam. ñii ut ne dañoo bëgg a élif. dañoo bëgg a élif. ñoom itam nañ bàyyi seen nañ bàyyi seen xel. ba ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm. yal na yàlla dimbale leen yaara bi. yal na yàlla dimbale Sénégal góor jigéen mag ndaw ñiy jàng ak ñi nekk ci armée beek ñi nekk ci administration beek ak ñi dikkagut ñépp yal na leen yàlla may jàmm ndax ñu mën liggéey liggéey bu dal pour avenir bii di ñëw ci suñ kanam suñu sët yi. suñ doom yi suñu sët yi. nekkuñu fi. nekkuñu fi. waaye waruñoo tas senegaal bu ñëwee duñ fi fekk dara. waaye waruñoo tas Sénégal bu ñëwee fi fekk dara. ñu commencé nag ñoom ñi mujjee ñëw ci zéro. yal nañu ci yàlla musal. sëriñ bi ne ñu ngi leen di ndokkeel beneen yoon. di leen wax marhaban bikum. tedd yi. yal na yàlla nangu suñ tànk yu tedd yi ñu dikkee fii ci barab bi. ci guddi gu tedd gii. ci guddi tedd gii. ci barab bii nga xam ne. ci barab bii nga xam ne. nit ku tedd ku nekk jaar na fi. nit nekk jaar na fi. te dara taxul la fee jaar. te dara taxul lu dut ut teraanga rek. yal na ñu ko yàlla may ñun ñëpp. sëriñ bi ne ñu ngi ñaanal suñ gouvernement sëriñ bi ne mu ngi ñaanal président Macky Sall yal na ko yàlla wattu sëriñ bi ne mu ngi ñaanal opposition bi yal na yàlla watu leen bañ leen a tarxisloo utal li nga bëgg a ut kenn aayawu la ko waaye nag yonent ne na booy ut ut ko ci anami rafetal boo rafetalee boo agsee lépp dafay rafet yal nañu yàlla xiir ci loolu daayiman yal nañu yàlla xiir ci loolu yal nañu yàlla dimbale ñu samp suñ Sénégal gi bu baax. sëriñ bi ne mu ngi ndokkeel ci guddi gi. xalif général de Tidiane. ñu ngi ndokkeel xalif général de Mouride. ñu ngi ndokkeel mboolem xulafaaw yi. ci bés bii. ndax ñoom itamit boo boo demee. ñu ngay def li ñu war a def ci bés bii. ci feeñal mbëggeelab yonent sallallahu alayhi wa sallam. feeñal màggaay ak yonent bi. yal nañu ko yàlla nangul yaa rabbi. wàccee ci ñun barakatu rasulullahi. Ibrahima ngeen gunge baaba ak hamziya bi bismillah. la la la la la إلا الله لا إله إلا الله إلى الله لا إله إلا الله la هيدا لا لا لا هيدا لا